amuñu leen lu dul suñu ay téléspectateurs ñun seen TV waaye mhm. ñoom itam amuñu leen lu dul seen ay seen public mhm. seen ay fan te mhm. nii rek lañ koy defee wéyal guddi bi ci spécial Noël ba tey rek ñuy accueillir keneen moom nag dafa am lu muy waaj waaye xam naa bu ñëwee dina ko daal di wax mu di taala Diazaka <laughs> moom doom la it ci biir kër gi way doom la ci kër gi doom la ci musique bi doom bugaan ah. boo waxee mu ne frère Cheikh Sarr euh, jumeau Momo <laughs> <laughs> mais bro Diazaka li mu ndaayee noonu la bëree fit nag. nga ne doom la ci musique bi. doom la ci musique bi. waaw parce que nag il faut dire que ni papaam euh, def na lu ne ci musique sénégalaise ça il faut le donc moo mm-hmm. tax moom bu ñu doon séddoo musique sénégalaise daf ci am wàll même bu wayul woon moom. waaw parce que loolu maam góor liggéey na ko fi. mon ami comment vas-tu. waaw Momo maa ngi lay nuyu. mais maa ngi lay fay mon ami. di nuyu waa Sénégal di ah. nuyu waa Tëngéej. Ah. parce que xam nga nit moom mënoo am lu ëpp fa ñun tëngeet la ñu juddoo fa la ñu yaroo fa la ñu màggee xam nga maam Kumba Lamb Ndoye du sunu maam te nuyoo bi aussi su ma ko jëlee teg ko ci loxo Adja Xaar Mbay ma jaaga mel na ni teg naa ko ci loxo waa tëngeet yëpp di kontaan ci plateau bi di wax gaa yëpp joyeux Noël que année bi ñu jugee euh, bëri na woon ay affaire waaye bi ñu jëm yàlla na yàlla effacé lépp mu gën a neex nan la bëri woon ay affaire waaw xam nga yow yow 2022 sa année la. waaw barki démb rek barki démb rek. te yow ba tey jeexagul ndax am na looy waaj. mooy yow da nga nar a jékki waxuma sax ci musique bi barki démb rek rey nañu rey nañu ay nit mbuur uh-huh. ba buggaan ah. dem faj ba buggaan dem faj leen donc année bii ñëw ay ree bañu am amiin amiin <laughs> amiin amiin amiin boobu am na solo ah, ah. et puis muy waajal événement bu mag après demain euh, muy euh, le 26 xam naa sax ni amoo temps yaa ngi ci répétition yi répétition laa jëm waaw ci affaire yeeg yu ni mel quoi parce que euh, ginnaaw suba ñun ñëpp dañuy daje Sorano muy le 26 bi incha allah guddi lébu gi la woote guddi lébu gi fukki penc ak ñaari nga woote waaw xam nga nag ñu dañoo juddoo tëngeej yaroo tëngeej màggee tëngeej tey boo xoolee ñi ngi def ñi ngi door def cinq ans ci musique Sénégal euh, am nañu parcours boo xam ni peut que am na ñoo xam ni ñu ngi bëggee xam nga et aussi def nañu benn tournée boo xam ne c'est mini mini national xaw a wër dëkk bi tuuti euh, fépp foo xam ne te soppee Talla Diazaka dafa nekk war nañu mën a benn jour rendez-vous boo xam ne war war nañ di si mën di dañee chaque année donc moo tax pour la première fois Talla Diazaka di dem Sorano benn salle boo xam ni salle mythique nit la mhm. boo xam ni tey suñu pap papa Thione dafa jaar mhm. suñu papa Youssou Ndour jaar fa mhm. Baba Maal ak ñëpp ñi nga xam ni tey. ensemble lyrique traditionnel ñi ngi leen di oowee artistes yu mag. Mm-hmm. donc rawatina man ma dëkk Tëngéej. Mm-hmm. dëkk ci fukki penc ak ñaari. Mm-hmm. ndax maam Kumba Lamb Ndoye sama maam. nga ne ma donc su ma sargalee lébu yi rek. Ah. Euh, woote gi lébu yi daf maa war. donc moo tax may invité lébu yi di ci oo jaraaf yëpp yi nga xam ni ñoo nekk ndakaaru ak ak ak ak ñi nekkul ndakaaru di ci oo ndeyu réew mi te gis naa ni aussi mobilisation bi waa Tëngéej teg. pour dugal ko biir Sorano incha allah bu neexee yàlla xam naa ni premier parti ndaw rabin bi moom ay maamu lébu moom waaw bu buñ teel a ñëw. <laughs> dañuy <laughs> waaw balaa gars yi di daanu foofu ay affaire quoi. waaw sa sa sa sa yi. invité nga leen am nga de bonne relation ak ñoom. donc ñan la ñu a xaar ci guddi boobu gannaaw suba. waaw ku xam Talla xam ni Talla moom ñëpp la amal jàmm. Mm-hmm. man ñëpp laa amal jàmm xam nga aw ma ak kenn xaar ma yàlla. li ko commencé ci suma papa Youssou Ndour. Mm. xam nga euh, Waly Balago Seck xam nga euh, suñu papa papa Diouf. Mm. xam nga Adji Ouza Viviane. ñëpp mm. laay invité xam nga. parce que tey musique Sénégal moom mooy gagné. Mm-hmm. parce que saali aussi buy fees musique Sénégal di dox musique Sénégal mooy gagné. Mm-hmm. oui mais saali aussi buy vide wala musique bi di demee boor. donc musique Sénégal moom mooy perte. donc képp koo xam ne artiste la di micro maa lay invité. nga ñëw support sa frère. Mhm. incha allah ndax le 26 xam nga Sorano météo. waaw ah. Sorano lu mu guddi guddi une heure lay jeex. Ah. voilà donc teel a ñëw voilà di wax teel a ñëw. Ah. voilà surtout loolu man bëgg naa vingt ñëpp nekk ci salle bi vingt une heures ñu commencé ndaw rabin gu saf sàpp. nga ne ma waaw sàjj ko gars yi bëggee vingt deux heures trente ma yéeg une heure gars yi ñibbi. su ko defee comme que lundi lay tombel mhm. ñi mën a liggéey liggéey. Mhm. tranquillement ayca esprit love nag. waaw esprit love. esprit love bégal nañu itam ci at bi ñu ne. waaw mbëggeel ci xel la ne ak ci xol. dëgg la waaw. <laughs> donc donc donc sans commentaire. Euh, dañuy bàyyi Talla Diazaka. Euh, mu yéeg ci kaw euh, ring light bi bu ko defee. mu may ñu esprit love bu ko defee ñu may ko képp kuy bëggante parce que xam naa ni. Euh, même même si vous êtes en famille euh, am na ñoo xamee ni en famille ils sont en amoureux euh, bokk na ci suñu papa yeeg suñu yaay yi bokk na ci suñu frères yi nga xamee ni ñi ngi ak seen ay soxna donc on a profit pour souhaiter leen un joyeux Noël esprit love lañ leen di may bu ko defee fi ngeen toog di béggee en amoureux ñu mun leen ko may yéen itam ngeen béggee rek bon fête à vous et puis c'est Talla Diazaka maintenant moomoo ah. mbëggeel bi ngay bëgg say waajur rek dafa sedd xol mbëggeel bi ngay bëgg sa xarit mhm. benn la mbëggeel bi ngay bëgg ki ngay bëgganteel mhm. boobu beneen la mbëggeel bi ngay bëggante sax diggante frère et sœur boobu beneen mbëggeel la nga dajale loolu yëpp yow daal macha allah tëgg ko ci ku gis ni nga def ni nga def liberté cinq <laughs> baas ba nga fa baas rek xam ni mbëggeel la ko waaw Ah. bëgg bëgg rek <laughs> wane ko si bëgg rek <laughs> bëgg rek en neex na. Ah. Uh-huh. waaw xam nga lépp ci liggéey bi la rek quoi mm. parce que xam nga defaguñu dara ay jeunes lañu yoo xam ni dañoo engagé wu pour def musique xam nga tout le temps li ñu war moo ñu liggéey. Mm-hmm. et que lii def bokk ci sama album bi war a ñëw. Mm-hmm. incha allah parce que bëgg nañ beneen taal la jazaaka euh, ci côté ci côté musique. ci côté arrangement xam nga ci côté ci côté ci côté ci côté liggéey daal. Mm-hmm. en tout je peux dire quoi. Mm-hmm. bëgg nañ ko génne en avril bu ñu jugee Sorano incha allah bu neexee yàlla. Mm-hmm. Euh, gaa yi mën a am benn album de six titres. boo xam ni Talla Diazaka moo ko de ci table bi. xam nga nit ñi aussi war ci mën a béggee. yesa donc yaa ngi woo ñëpp ci guddi lébu gi. maa ngi woo ñëpp maa ngi woo Tëngéej di woo Ngor Wakaam Kayaar képp kuy lébu képp ba pare sax xam nga c'est vrai que ni lébu yi laay sargal. mais Sénégal en tout laay woo. koo xam ni. Euh, am nga yéene xam nga ñëw maa ngi lay invité nga ñëw Sorano ndax boo ñëwee di nga gis musique bu nice di nga gis spectacle surtout spectacle bi ñuy waaj. Mhm. ndax c'est que ni nit ñu ñëwal la neex na. Mhm. waaye bu ñu ñëwee nag nañ fa fekk spectacle bu jar spectacle culture lébu dafa bëri. voilà euh, lu fa mën a voilà kii kii kii di lébu di culture. Mhm. donc nag beneen facette bu taala jazaaka wan gars yi ni taala màgg na. waaw ndaxte nag xam nga am na artistes yoo xam ne ay artistes live lañu. te ñun dañoo mën a live nag. Mm-hmm. waaw ku ñëw fekk ñu incha allah Sorano man leer na ma leer yaan ni doo ko réccu entre bi 5000 la que ni instant bi ticket amatul. yëpp jeex na yëpp jeex na. donc li a wax ba mën a wax mooy que bëgguma kenn mere ma yéen waa Tëngéej yéen waa Ndakaaru yéen waa Sénégal taala seen doom moo leen di oo bëgg naa 20 heures ñu def guichet fermé incha allah Sorano 22h30 ma yéeg wayal leen ba minuit une heure. ñëpp mën a àgg seen kër deux heures du matin mën a tëdd nelaw xëy liggéey ayca kon ñu ngi woo waa euh, waa Tëngéej yëpp sama waa kër papa waa kër Kora Doudou Mbacké Fall te dama koy sargal ci bis bi euh, dama koy sar dama dama koy hommage ci bis bi ah, dama dama ci dama dama ci def hommage à Badara Mamaya Sène ah, ah. def ci hommage à Mamadou Kora Fall def ci hommage à Ndiawar Touré ak Mbaye Jacques Diop mm-hmm. donc di ci sargal Adja Xaar Mbaye ma jaaga Tëngéej yàgg na am ndaanaan yàgg na am i ndaanaan sama baay ji moom it ndaanaan la mu yaay Cissé ko li sa kooku kooku du dara du nit du nit kooku moom boo demee bureau ba mu rëkkal da ngay bàyyi àdduna waaw dëgg la moom gëñ man <laughs> kooku mooy sama papa bàyyi ah, gànna bàyyi taala jazaaka moom tamit dina dina dina teew ci salle bi ndax hmm. nag xam nga li gën a neex mooy tey ñi ma bëgg a dajale ci salle bi moo ñoo jafe dajale tey ku ci mel ni monsieur le ministre Matar Ba hmm. xam nga nekk sama papa hmm. war a ñëw ci salle bi ku ci mel ni ministre de la culture monsieur mm-hmm. Aline Sow mm-hmm. war a ñëw ci salle bi mm-hmm. ku ci mel ni tey benn Abdoulaye Makhtar Diop grand serigne de Dakar war a ñëw ci salle bi ku ci mel ni jaraaf Youssou Ndoye war a ñëw ci salle bi ba pare marraine d'honneur bi nekk suma yaay Viviane Chidid Ndour ak maman Moumi Dani Guèye donc xam nga ah waaw xam nga loolu nag xam nga loolu nag dafa garaaw loolu ah. nag foog ma woy ba sama buti ci génn quoi voilà donc li ci invité Sénégal ñëpp daal ah. yaa Yeah. donc ça promet ça promet le 26 après demain euh, ku jotagul am ticket dawal gaaw uti ko ku amul nag toogal xaar ko rek sur la Sen TV la leader ndax xam ngeen ne nous serons aussi en direct euh, foofu noonu ca Sorano yàgg dooleel artistes yi yow nag ci kër yi nga bokk moo tax plaisir la tey ñu dalal la fi kontaan a naa aussi di remercier Bougane Gueye Dany mhm. monsieur le président Bougane Dany et xam nga di di ñaan aussi ñi yor réew mi bu ko mënee dimbali rek na dafa am ay employé xam nga nit la koo xam ni barki démb maa ngi seetaan ci télé bi gis am na ay nit yoo xam ni dañ leen fekk ci benn marché ñu rey leen mhm. Bougane xam nga fële ca mbuur bugaan moo fa njiitu euh, fajal leen seen soxla voilà te genre nit yooyu ñun dañ leen soxla mm. ndax dañoo am valeur voilà donc man bi may sama événement buggaan laajuma dara dafa ñëw ne ma jeune bu nekk ci yoon gëm dara mm-hmm. dañ ko war a teg loxo jàppale ko mm-hmm. donc bu ñu amoon vingt cinq personnes yu mel ne buggaan Sénégal day avancé jërëjëf merci beaucoup kontaan nañ li mu wax noonu Momo mm. Sen TV yàgg na gunge ay artistes mm-hmm. bu ñu la ko laajee da ngay ne TV la ci gunge. Mhm. kon Sen TV yàgg na croire ci li nga xam te ne moom mooy euh, artistes musiciens yi yàgg lañ cee gunge tamit. et puis pour euh, wan la preuve bi ku ne xam na ni mhm. événement yu mag yëpp ren euh, Sen TV lañ ci àndal ci télé bi. gis ngeen depuis le 10 décembre niñ leen di gunge ci suñu ay programme par exemple bu ñu fi jógee ñun nii bu ci kanamee tuuti dañuy dem fële ca stade Elimane Fall bu Diourbel. ànd ceeg jaaman donc moom itam programme am tey la xaar leen ko euh, di ko dund euh, fii ci Sen TV euh, le 26 Talla Diazaka wax na ko léegi moom itam dinañ ànd ak moom fële ca Sorano ba tey muy ay programme yoo xamee ni euh, Sen TV moo leen gunge par exemple le 29 décembre dañuy delluwaat Diourbel ci stade Elimanel Fall euh, Wally Balago Seck lañ fay àndal ba tey ak la chaîne leader Sen TV bu ñu fa jógee 31 décembre incha allah euh, lu bal de Faramarènes comme à chaque année dafa bokk ci calendrier musical bu mhm. Sénégal dafa bokk mhm. ci agenda culturel bu Sénégal muy lu bal de faramaren et puis ngeen ànd ceeg la chaîne leader Sen TV ku ne gis na ni Wally jox nañu album bu neex a neex neex ce 19 passé donc découvrirandoo ñun ñëpp euh, le 31 décembre fële ca place du souvenir mm. euh, muy le bal des Faramaren premier janvier itam euh, Balla Gaye ak Boy Niang dañuy bëre ba tey seen TV ngeen ci àndal premier janvier itam bu ñu seetaanee làmb ji ba ci ngoon gi Euh, dina amaan beneen cocktail bu explosif fële ca Sorano parce que euh, sunu yaay yi lañ fa dajale ku ci mel ni Adja Fatou Géwal ku ci mel ni euh, Adja Kiné Lam ku ci mel ni Mor Géwal ku ci mel ni mhm. Mère Ndiaby itam ñoom ñëpp dinañ fa daje Fatou Géwal Diouf ba pare ñu coiffé kook seen doom Wally Balago Seck mu war leen jox itam beneen guddi Ndakaaru Ndiaye le premier janvier incha allah ba tey ngeen dund ko fii ci Sen TV la chaîne leader le 7 janvier itam ba tey duñu ñu génn Sorano parce que soppey Pape Gueye yëpp Pape Gueye Miladi euh, dinañ jox rendez-vous fële ca Sorano itam lu set muy guddi Serigne Saliou Mbacké ku ne xam ne nag ki ñi sargal euh, jar naa sargal ah muy Serigne Saliou Mbacké maa la wax ni mooy yaakaaru xale yi <laughs> mi ngi noonu donc le 7 janvier dinañ ci ànd ak moom ba tey waa Tëngéej itam euh, xaar leen ñu fële ci stade Ngalandou Diouf parce que Bercy Tëngéej euh, le bi di ngeen ko dund muy 14 janvier ak Wally Balago Seck euh, ngeen ànd ceeg ba tey la chaîne leader muy Sen TV lii mooy sunu ay programme ci fin d'année bi ak ci début d'année bi juste mhm. pour dire que ni sunu leadership duñ kenn du ko naatable kenn du ko naatable nekk aussi li nga am seen ne mooy premier ci ci télé beeg ci rajo beeg yëpp mm-hmm. affiche yee ngi noonu programme yee ngi noonu kon wàcc leen ko et mm-hmm. c'est culturel ça accompagne dina ci neex mm-hmm. man moom maa ngi xaar 31 bi waali yàgg nañoo bëggal miin nañ ko ci kër gi waaye tamit làmb ji tamit moom moo boobu tamit maa ngi koy xaar Balla Gaye Boy Niang waaw ah, ah ñoom ñaar ah. ñëpp nee nañu ku dàkk bëree ku dàkk xeex yàlla na la yàlla may ndam <laughs> en tout cas on attend de voir et puis di ngeen ko dund ba tey euh, ci télé bii di Sen TV Fama man sama soxna damay am habitude di ko wooyee madame Bonheur. Mhm. waaw. Ah monsieur Bonheur. <laughs> Eh, et c'est grâce à une chanson. Ah. man ba tey ca way wa man. Uh-huh. laa ko tuddee madame Bonheur ba tey. ca way bu njëkk ba mooy bële. madame Bonheur ba dëgg la. ci way wi man maa ngi doon dégg. ci kër gi façon tur bu ne parce que man il faut dire que ni euh, dépend. man tout le temps ñu changé ma tur faama. yow mi man tuddee tuddee nañu ba tuddee ma mbaxal. <laughs> man tuddee nañu ba tuddee ma mbaxal man. Ah. Uh-huh. mais depuis way bi tàmbali ba tey kër gi monsieur Bonheur dong laay dégg. téléphone yi monsieur Bonheur. maa la wax lii message yi monsieur Bonheur. maa la wax lii message matinal yi bonjour monsieur Bonheur loolu rek ngay dégg monsieur <laughs> Bonheur macha allah mu neex lool. Ah. et la grande diva. Mm-hmm. Adiouza mm-hmm. euh, doomu per Ouza. Mm-hmm. moom bu teggee yoon sax ñu laaj ko donc duñ ne guleet ci moom. lu mu génnee it la li mu mujjee génnee neex na xanaa ñu accueillir ko rek. olof day faral di wax naan doomi mbër jàngil bëre yàgg yàgg. des na la ñam moom daf ko doon ci baayam en plus de cela mu dem jàngi ko euh, loolu mooy waral bu ñu koy déglu di sentir un peu euh, benn particularité ci musique am mhm. juste pour dire que ni euh, au de delà de doomu diw gi mu doon daf ko dem jàngiwaat mhm. pour gën a wu ci musique bi on se rappelle de sàmba Samba on se rappelle de ay début am ba tey boobu ba tey mi ngi bégal ci musique sénégalaise Adiouza elle s'appelle bienvenue <laughs> et joyeux Noël et joyeux Noël <laughs> toute ravissante. Merci beaucoup. Bienvenue. Aïcha, prends place. Mais la diva. Ah, ah la grande dame. Uh-huh. toujours aussi élégante. nuyu nañu. man maa ngi leen di fay. Euh, joyeux Noël. maa ngi nuyu téléspectateurs yi leen di seetaan yëpp. Mhm. di rafetlu trop invitation bi. di nuyu fans yi fépp fu ñu mënti nekk ci àdduna bi. Mhm. di leen wax rek joyeux Noël à tous. <laughs> Joyeux Noël à tous en tout cas c'est avec un immense plaisir ñu dalal la fi tey et puis 2022 nekk aussi nga xamante ne année bu riche ci lu bëri mais musicalement parlant nekk na aussi seen année yéen musiciens yi ndax nañ leen di tooñ sax ne Covid bi dafa tax ngeen lëlu ku nekk bind texte yu riche ba nga xamante ne 2022 lañ ko daal di consommer mais tey ci suñu spécial Noël mm. ñu tànn ñi nga xamante ne ñoo génne ay son it mënoo ci woon rëcc Adiouza mënoo ci woon rëcc hmm? macha allah et puis à chaque année est ce que est ce que def nga benn constat depuis Adiouza commencé di musique ba tey mhm. chaque année by force dafay bokk ci euh, top tendance bi dafay bokk ci top tendance yi tellement que nii qualité bi ñu ñuy fournir c' est c' est daaw la ñu joxoon euh, madame Bonheur. ren mu jox ñu monsieur Bonheur. tata Bonheur xam naa ñu ngi koy xaar tonton Bonheur ñu ngi koy xaar. <laughs> pourquoi pas. <laughs> bi. koy faral di waxee mhm. lu ba waaw mhm. wax lu ndaw. man loolooy sama philosophie. Uh-huh. damay damay lëlu nag mhm. léeg-léeg gars yi gëj ma dégg fan si laajte. waaw Adiouza foo nekk dañ may gëj dégg nag léeg-léeg mais buñ ma gëjee dégg rek nañu xam ne. job bi moo tax job bi mm-hmm. moo ma téye ñoo ngi nekk di job mm-hmm. donc loolooy waral ñu may gëj a dégg mais tamit di remercier aussi les sénégalais mm-hmm. di remercier fans yi parce que c'est pas donné à tout le monde nga toog lu yàgg kenn déggutu la nga ñëw def ay son lu waraloon bi nekk di job nekk ci yeneen business di job xam nga nekk ci yeneen bagage daal doon liggéey te dañu doon dañuy waajal benn album mhm. bu pa buy waaj génn nii ci lañu mhm. ñu woon nag mhm. nekk di job di liggéey lu bëri donc il euh, y a beaucoup de yoo xam ne sax pare nañu mais monsieur Bonheur bi moo doon lancé album bi waaw léegi yeneen clip yaa ngi war a ñëw l'album doit sortir il y a des soirées à faire il y a des tournées faire voilà ainsi de suite loolu daal moo taxoon et booy génnee meilleur it ci at bi Adiouza du ci génn booy génne itam meilleur featuring ci at bi Adji Sarr du ci génn. Mhm. mesure xam naa sa ah mesure. oui na <laughs> nice son bu nice ak Sidi Diop. récemment ak euh, ki nga xamante ne ndaanaan la tamit mu di Cheikh Lo. Mhm. oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai un très grand chanteur international d'ailleurs mhm. international. un papa que je respecte. bi nga xamee ne daf ma woo ci son dafa ma lu dul waaw. kii j'avais envie de chanter avec lui parce que monument la quand même. ci musique sénégalaise bi. te mm. tamit xam nañ ko à travers le monde. il il faut que ñu jox ko cër boobu jox ko respect boobu comme ni ma koy faral di wax mag ñi dañ fi def loo xam ne mm-hmm. ñun ndaw ñi defaguñ ko donc am na benn respect boo xam ne ak benn cër boo xam ne mm-hmm. war nañ leen ko jox mm-hmm. donc bi ma woowee pour featuring dama bàyyi li may def yëpp daw ah def ndax xam naa ne naa ci jàng forcément. c'est clair ça c'est <laughs> nga xamante ne cartonné def it. Mm-hmm. Euh, ñu ngi koy consommer ba léegi nii est-ce que gënoon attente bi euh, ni ko nit ñi xaaree. jëlee ko noonu est-ce que gënul foofu sax madame Bonheur naka <laughs> waaw waaw waaw monsieur Bonheur ak madame Bonheur nag moom <laughs> ñi dañ ma toppoon bi ma génnee madame uh-huh. Bonheur. góor ñi dañ ma toppoon mais aji da nga beral loxo jigéen ñi ma madame Bonheur pourquoi pas nga wéyal ñu ñun monsieur Bonheur moo tax fale moo wéy monsieur Bonheur mais balaa inspiration bi di ñëw tu as vu c'était ça a été long. <laughs> ça a long <laughs> ça ah. xam nga inspiration du ñëwee noonu. saa a été long te mm. tamit ma toog nag xaar tamit yàqamtiwu ma ko. Mm. ñu topp ma monsieur Bonheur monsieur Bonheur léegi ci laa defee benn son boo xam ne ça parle même. de réconciliation monsieur ouais. a au fait. ça parle de réconciliation. jubóo la au fait. jubóo de l'année pour rejoindre la ci voilà <laughs> boo xam ne man damay tëdd sax. di ko fredonné mm-hmm. mooy. dama mooy jubóo. waaw jubóo la do jubóo la jubóo la. dama pare jubóo ki yow. ba foofu ñuy woowee wuyaay oh oh xamante nañ du am coow. jël am foo ko fogewul ah. suukar bi ci banana pare nooy ni xaar mant bi ne ci naana ak yeneen yi lay xaar. <laughs> tax yooyu tax yooyu c'est magnifique. et naan ko mère bi doy na. mère bi doy euh, noonu laa lay namee. <laughs> a euh, yooyu noonu yëpp Adiouza jël dugal. Mm. boole ko ci biir euh, son bi. y a des messages codés y a des messages nous a pas surpris d'une part. Mm. d'une ñu ngi naan. Adiouza cette fois-ci daf ko osé. génnee ko wax ko. Mm-hmm. Ah, ah. naka la la euh, inspiration bi dikkee. non tu sais tu sais texte bi ñu bëri dañ ma koy approprier mais à chaque fois damay wax texte bi sama sama auteur moo ko bind mooy Kourouma Ndioum. Kourouma moom mooy bind sama texte yi. donc dama ko ne bindal ma benn texte ci réconciliation. la séduction Après, à réconciliation c'est la c'est de la séduction. À tout à fait c'est une femme. Euh, boo xam ne dafa doyal ci mer bi mu xuloo bi mu xuloo ak jëkkëram. Mm-hmm. léegi mu ñëw nag pour baalu ko àq pour ne ko mer bi doy na. ça part de l'humilité de la femme. Ouais. en ci biir sëy dañuy conseiller. femme une femme doit dafa war a mm-hmm. humble. humble am humilité wu bu mer bi yàggee mu ñëw. baalu àq wala bàyyi mu jàll. bàyyi mu sedd waaw jigéen warul orgueilleuse. bu orgueilleuse rek sonal jëkkër ji. donc euh, conseil la boo xam ne ci biir son bi mi ngi ci subtilement. Mm-hmm. doo ko jàpp rek ci séduction mais am na tamit humilité. Mm-hmm. boo xam ne képp kuy jigéen nekk ci biir sëy tamit te bëgg sa sëy yàgg. Mm-hmm. te bëgg yàlla musal la ci ay divorce war nga am humilité boobu mm. Mm. donc conseil la sur l'humilité de la femme tout à fait. en quelque sorte tout monsieur Bonheur tout à fait le message est <laughs> et on la laisse rek juste mu dem rejoindre scène bi comme ça ñu daal di apprécier son vie ouais. en en direct en live monsieur Bonheur euh, que nous sommes euh, en direct nii waaye tamit sur nos plateformes ñu ngi uh-huh. ci moment Fama ñu toog ak seen ay euh, soxna ñi toog ak seen ay copines alors que ni rien ne va xuloo nañu euh, du ñu wax ñoom ñaar donc bu ngeen dégloo son bi essayez de vous réconcilier parce que tey bisu fête la tey bisu jàmm la donc yii yëpp dafay euh, wane que ni ñun li ñuy def c'est dans le but de bien faire réconcilier ah et puis fédérer modéré yooyu yëpp dafa bokk ci li waral plateau tay bi way bi itam euh, dafa bokk ci li tax ngeen di jiboo à chaque fois bu ngeen di xulowee donc monsieur Bonheur si c'est bon ñu dégloo doo ko ñun ñëpp et puis bégal ci képp kuy couple actuellement di seetaan la Sen TV la chaîne leader. <laughs> monsieur Bonheur. eh ben maama way wi takk yu bëri. waaw ça c'est vrai. Ah. <laughs> merci euh, sax xam naa ñi ñuy seetaan di nga ci gis ci commentaire yi euh, ci Facebook live beeg yooyu. ñuy wax que ni way bi moo leen jëboole seen ay copains wala seen i ay copines wala seen i ay soxnaak yu mel mm-hmm. certainement du ñàkk parce que euh, bu way bi lool la en fait. tout à fait et la a passé un bon message waaye yow tamit sànq wax nga na nit ñi juboo mm-hmm. kon képp ku ñuy seetaan rek juboo ak sa soxna mm-hmm. soxna si jógal baalo àkk te juboo aju jox na leen sax ay clé yenn ci suuf bu baax a baax en tout cas neex na ñu ngi la ciy féliciter di la ci remercier tantôt wax nga ko ay album yoo ñu andi kon 2023 bu ñu ñëwee ci perspective yi on peut s'attendre à quel mois wala ñu bàyyi noonu rek di la suivre bu baax a baax ci sa ay euh, <laughs> page digitale on peut on peut on peut oui. communiquer on est là pour communiquer on est Tout en fin d'année ouais, mm une soirée des femmes leaders bu ñu war a def le trente décembre mm -hmm. Novotel mm -hmm. il la sortie d'album bi war a génn mois de janvier parce que dañ ko pousse mhm. euh, il y avait dafa dañoo am ay retard quelques problème technique yoo mhm. yu tax ñu pousse ko donc dañu pousse sortie bi un peu au mois de janvier mais il y a une soirée qui doit se faire des fans avec les fans yëpp Novotel soirée de gala et ñu war def le 30 décembre maa ngi fay jox rendez-vous képp kuy soppe Adiouza képp ku muy suivre képp kuy bëggee Adiouza 30 décembre Novotel mhm. di leen wax rek am na yeneen son yu ñëw album baa ngi war a génn tamit mois de janvier incha allah loolu mooy programme fin d'année bi mooy programme fin d'année <laughs> riche na te yëpp dinañ la ci gunge euh, mm. la Sen TV en tout cas kontaan nañu dalal la fi partagé ak yow plateau bi. Mhm. bàyyiwaat la rek Momo n'est-ce waaw bëgg nañu c'était un plaisir. Ah, <laughs> a maa ngi leen di remercier bu baax. di la euh. remercier Momo di remercier Fama. di remercier kilifa gi. di mhm. remercier ñoom Pape Diène ak toute l'équipe technique. Mhm. bi nga xam ne ñu ngi fi depuis ce matin di liggéey ci lii. donc maa ngi gërëm ñëpp. di remercier aussi téléspectateurs yi ñuy seetaan di mm. remercier fans yi sama supp yi may jàppale fépp fu mu mënti nekk maa ngi remercier mon papa ma mère bi may seetaan en direct ni en mm. France. Ah. ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bisous bisous et merci à vous. père bi kañ lañu mën a xaar Futurique. <laughs> Futurique delloo si waat 20h. Ah. nga ñëw dugg ci. si si si ma 6 heures 6 <laughs> heures c'est vrai maag père moom. Euh, dañuy def featuring lu bëri moom waaw yàgg nañ def ay featuring yàgg mm-hmm. nañ proposer ay featuring ci euh, ci samay album mm-hmm. mais album bi malheureusement defuñu ci featuring mm-hmm. <laughs> mais am na yeneen featuring yu nekk ci biir album bi inchallah merci beaucoup merci vraiment ah, Merci. merci et puis merci aussi moom it euh, facilité lañu ko bu baax a baax. merci merci mes gars en tout cas bonne fête. merci bonne fête à vous. merci merci également merci <laughs> la